virar, ganhou virar. Nerede yok otur. Mum, acaba mum. wër Sénégal dafa meloon ni cyclisme cyclisme dafa deewoon au Sénégal mais grâce à vous cyclisme baa ngi gën a dund on fera tout que la mairie avec euh, madame Mariama Sarr seet comment reprendre le cyclisme au niveau de Kaolack donc on va tout faire pour cette année que l'année prochaine au moins su ngeen di ñëw su ngeen fekk fii ngeen fekk fii benn équipe cycliste bu leen di xaar di leen xaar suñ mënut a ànd ak yow def le tour mais dañ fekk fii ngeen nekk fii ñoom di ngeen fekk ñëw ñu toog leen xaar suñ amul sax dix ko coureur ñu am sax cinq coureurs yoo xam ne ne su ngeen ñëwee di nga leen fekk fii ñu ànd ak ñun def wër Sénégal. mairie Kaolack yàlla def na si budget moom dafa alloué cinquante millions pour sport moom parti buñ ci jógleel pour cyclisme waaye nangu nañ ne nag nu fi daan doxee si jamono doxeetu ko. c' est le moment ñu def un plaidoyer vers vous comme que Thiès dem na ba tollu foofu nit dangay xool ki réussir nga jéem a jaar fi mu jaar ba yegg foofu moo tax bi ñu yégaloo dañ sawar dinañ jëlante coordonné waxte ne ñu xool ni ngeen def ba am circuit parce que ville de Kaolack circuit war na fee mun a nekk mais professionnellement ak techniquement appui technique bi suñu équipe bi am bi Thiès am suñ ko amee ñun dañ ko mën a def parce que yàlla def na budget sport Kaolack takku na waaye daal ñi leen di promettre ne l'année bu ñu fa tasawaatee dana am changement changement bi nag si lañ ko yaakaar pour ni ngeen def ba relancer seen ville ngeen ere ñu si expérience ba ñun tamit au niveau du commission sport commune bi ak maire bi ñu relancer cyclisme ba toll fi ngeen toll. cette belle initiative que vous avez euh, entreprise pour euh, Kaolack et l'ensemble du Sénégal vraiment nous sommes très contents nous aussi de vous rendre la mone pour dire que dans un pays pareil comme le Sénégal seul le sport est favori j'espère très bien. Donc vous voyez que Kaolak aujourd'hui, les cyclistes sont la mais les sports boulistes également sont ici à Kaolak, surtout à Bongré, dans le terrain en train de compétir. La commune de Kaolak, comme nous le savons, vient toujours en appui aux, euh, aux, dirigeants, aux, aux différentes structures euh, sportives qui sont ici à Kaolak. les cyclisme, chaque année, a une subvention allouée pour qu'ils puissent au moins remplir leurs conditions ou leurs activités de travail durant l'année. maa ngi maa ngi remercier euh, sama équipe waa Thiès ñoom ñi nga xam ne tey ji ñoo ma permettre tey ji ma sol maillot jaune fii en état bu Kaolack bi di sama dëkk fi ma juddoo maa leen sant yéen ñëpp waa Thiès yé yé yéen a ko yor yéen ko yor